ndax dafa mel ni produit yi dafa ñëwaat xale yi bëggaat nañ ko def nañ ay tunique comme suñu client yu nekk Europe diaspora bi ñoom dañuy bëgg tunique parce que léegi euh, ñëw bi dafa toll foo xamante ne dangay sol lu standard lu jàpp simple classe moo tax ñu gën a taxaw ci mbasin yi ak tunique yi moom la ñuy génnee. waaw man damay xool par rapport lu xew loolu am na solo trop waaye am waaye tamit dama am sama touche personnelle. waaw sama touche personnelle parce que ñaw bi tamit boo déggee mun a création moom comme son nom l'indique il faut ngay créer da léegi mode bu toll na foo xamante ne macha allah xale yëpp ñëw lu rafet waaw loo fi ñëw da koy ñëwaat mais dafay baax ngay créer parce que loolu mooy touche boo xamante ne mooy apporter lu bees ci sa liggéey. Mhm. d'accord loolu ñu bari dañ ma koy wax sax man damay ñëw selon modèle client yu ma am. parce man ay grand dame ay femme de classe yu bëgg lu simple lu rafet mais loolu taxul aussi am naa ay clientes yoo xamante ne ay ivoiriens ay maliens mais yooyu en général ma ko publier ñoom damay liggéey ñoom ci suuf parce que ay ñaw yu ñuy jaayaat la donc di ñaw yoo xamante ne dama koy mën di publier mais par rapport ak fi ma nekk ni ak euh, suñu train de vie ñu Sénégalais yi seen genre tenue yu bëgg moom ci yooyu laay opté bu baax mooy ñaw yi simple classe nga xam ne ku ko gis rek di ko mën a sol en plus dina mën a dem fépp. waaw loolu ñu ngi ciy taxaw. xam naa sax ma profité waale di nuyu sama waa association des jeunes femmes islamiques du Sénégal man maay seen vice présidente comme li ma posé nii ñoom dañ ci taxaw ci lool parce que ñun aussi dañ ne pourquoi pas on est des jeunes des jeunes entrepreneurs yoo xamante ne ñu ngi liggéey créer di participer ci développement wu dëkk bi pourquoi pas ñu ut loo xamante ne ñoo koy moomal suñu bopp à notre nom ñu mun ko comme yow li nga ko waxee ñu mun ko ñu mun ko valoriser ko protégé ba nga xam ne keneen ku génn ñu xam ne lii ci ñun la jógee loolu dafay am solo ci liggéey parce que nga créé ba mu baax aussi exposé ko keneen jël utilisé ko da yow liñ ci bëgg dëgg doo ko am dafa xaw a metti mais bon ak vingt et unième siècle moom loolu mënut a ñàkk sax waaye protection boobu ma wax moom incha allah ni ñi ngi dox pour jëm ci loolu loolu war naa mën a nekk sax am na loo gis lu ne rek dam kii la dañ ci am ambition ba noppi nga dox jëm ci waaye nit nag moom jéem la mën yàlla moom mooy mottali mais képp ku ci bëgg moom lépp loo bëgg sax laay wax en manière générale boo ci doxee suñu borom dina ci defal sutura donc lépp lu nit am pas-pasam da bëgg ko jàpp naa ne lu impossible am boo ci doxee dañ ci am luñ ci bëgg dañu ñu ngi ciy dox jëm ci loolu incha allah. lii moom daanaka tuuti bi man maa xam loolu la gars yi bañ a dégg mais xool je suis j'approuve mi ngi na rafet na voile askan loolu laa ci def na ay léegi lii dafay ànd ak tànn xool neex na ci yàlla. am ko benn machine. dafay ànd ak robe intérieur ak écharpe. donc ñoom yi raar na sant nañu ba lu ko koy mën a sant. loolu mën na ko bépp aussi. kii moom spécial la. parce que ki ma commandé tissu bi sax man la ko tuddee. tissu bi moo raar tudd moo tax ma def ci ay ay collection yu bari waa exactement ñun aussi moom mun naa leen ko tuddee ci man lañ ko way amee ci man nga gisee donc moo tax ma ko ko ci ay ay différents ay différents modèles donc ñu ko la sant ñu génne ko ay petit ballon def tout ce que die zijn, die hebben ze toespitsen en komt samen die nemen of mambelen daar. Dus wat wil je? Je hebt zonder moeder carrément. waaw lii moom bu génnee moom ñu koy gis dañ xam ne que ay ay modèles yu simple la mais yu baax ay a loolu am na solo ci ñaw nga xale nga ji moom vraiment ñu ngi créé rafet am na ay nit aussi tissu bi tamit message la message moom ñëpp moo ci xam ba certains clients sax vraiment. moom li mooy woy communément la reine du paysage ndax paysage bi mooy soobal yow dañ ci doon dégg bu baax a baax a baax dèjà bi sax euh, n'importe la mais am na yoo xamante ne maa koy defar sama bopp maa ngi choix bi lépp gisee ko lii aussi ñu ngi doon bi moom am na fi am na ci modèle yi xam naa ne jéeg bu ko taay la sa jëkkër ndox wala nga def ko jour côté moom xam naa ne bu dee amoo wuti moom doo amoo wuti bu dee am na aussi tam jàpp na jëmm ji jàpp ci daal lii moom am lépp dina wax. balaa nga laaj aussi xam nga ay ñoom daan naa lii ay rob intérieur am loolu day sat na fa donc ñëpp ci collection bi donc am na mën nañu mën a aussi comme internet la day am yoo xamante ne day yëngatu loo xamante ne ko gis. moy dal aw yu frais yi mm. ñaareel moo ñoom seen mënoo yi parce que fang la def ci dugub bi lépp di meuf gis ni di marinière la petit marinière ak sœur lii aussi modèle bu top la modèle tendance la vraiment képp ko sol mom sa laaj du la mere rafet na amna aussi bi bi mom création bu bess la dama def ay nervi ci ginnaw mu jël sa taille ci kanam ma def ci petit broderie yo xamantene vraiment boo ko solee aussi ñëpp dañu xam ne si sol nga yëre bu am classe yére bu ñu imaginer aussi euh, am na yii aussi yii moom ay léger la yii ay léger la style carrément africaine aussi yii tamit ay léger la day ànd ak sër ak musóor am na ci aussi blanc def nañ ci blanc blanc bi aussi bu dee aaw yi ñu boole ko sëp bu dee yi ñu boole ko baa wala jupon lu dox noir bi aussi bi noir la aussi dafay ànd robe bi intérieur baat bi dama bëgg nga zoomé ko nga xam ne ñaw broderie dafa war a set am finition waa ñu ficelé ko ba mu baax waa zoomé liiju bi ñaw day set am strass noir doore dafa rafet xel bu xees bu ko solee de xam naa moom àdduna tukki rafet na classe na tunique la amna couleur yëpp aussi bi elle est disponible sur toutes les couleurs. Mhm. jaune bi ma génne ko somo rouge bordeaux ak ngalam manam dama joué ci couleur yi aussi vraiment sénégalais yi moom bëgg nañ lu rafet mais pratiquement aussi samay cliente du diaspora rawatina waa États-Unis ñoom ñoom collection bi ñoom laa ko tuddee ndax ñoo may force waa États-Unis vraiment. waa Florida Indianapolis vraiment sama gars yooyu nekk waa Texas ñoom aadama ñoom seen ñoom Tidja ñoom ñoom laa may collection vraiment ñoom ñoom bokk nañ ci li ma gën a doole ndax ñoom vraiment su ma génnee collection du benn du ñaar ay 5 6 jëm kaw nañu jënd ma defal leen ko livre maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp te vraiment un plaisir ma ñëwoon fii présenter leen sama collection mode Korité ku bëgg ci ñaw yi. wala ci modèle aussi mën nga ñëw fii euh, rond point Liberté 6 derrière station Total bi mooy ci deux voies yi Sacré-Cœur yi ñu nekk en travaux yi actuellement numéro téléphone bi 77 044 89 53 nga nga ci deuxième numéro aussi 78 163 83 79